asalaamaaleykum asalaamaaleykum yéen yi nga xam ne yéen a baaxoo di seetaan Marodi TV man oustaz Nice maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam fekk ko ak sama loxo ndeyjoor ki nga xam ne mooy baax ñu leen di nuyu di sant ñi nga xam ñoo nekk bitim réew di nuyu suñu mel ni Souleymane Sow ci Allemagne ñu ngi koy nuyu mooy nuyu Abdoulah Khat ca États-Unis maa ngi koy nuyu di ko di nuyu ki nga mooy waagaan seen ci port gi utam waa beneen ñoo ngi leen nuyu yëpp di nuyu sama waa ji nga xam ne mooy xaritam bi di xaritam di Tafa nekk fii ci Sibral Taat maa ngi nuyu bu wér du nuyu tamit ki nga xamante ne ni mooy seen sœur seen xar jigéen di faat nu mu tudd faat ay ay waay da xanaa da ngay lekk ndax xanaa wor ah, ñu ngi koy nuyu ah, moom Kumba Kumba ñu ngi koy nuyu bu wér wér ma bàyyi sama xarit sama doomu mu nuyoo moom tamit ziar man damay sant yàlla rawatina nag waa Espagne Bilbao ki nga xam ne mooy julli sama xarit. te àll bi Cheikh Abdou Karim. nga xam mooy Fatma Maajoor nga xam mooy Mouhamadou Assane ah ñoom ñëpp ay ñoom Pascal indi si yooyu yëpp maa ngi leen di ñu baax la wax dëgg yàlla ñu ne yàlla suñu sëriñ ñi nag suñu sëriñ suñ sëñ sëñ sëñ pers maintenant ñu ngi di nuyu doomam jël sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Moustapha Mbacke di nuyu suñu xarit bi sëñ Cheikh Mbacke bu bu bu borom dende borom dende borom waaw doom sëñ Koso Mbacke mhm. ñoo ngi koy nuyu wér di ko sant di ko gërëm moom itam di suñu nit vraiment waaw dañuy jublu ci nga xam ne mooy danger yi. waaw dafa bari waxoon nañ ko fi keroog émission bi passé tey ci ñooñu lañ jëm. réew mi bomb nga fi. bomb bu rëy day éclat. gis nga apparenté gis nga bomb bi nekk ci ñoom. waaw kii la moom maanaam. bu ma wax la bombe atomique. amoon ñaar lay def léegi mbirum sangu mi. waaw naa dama gis apparenté. ah waay waay apparenté benn apparenté bi ma ko laajee. ndax fu nekk nii émission boobu nga fees dellu. waaw waaw. sàndarma yaa ngi jàpp rek di dugg. ah ni ñuy def. apprendre karaté. te dara waralu apprendre jaga jaay apprendre tata. sukkur kalando. jàpp ne ñëpp dugal émission ñàkk sax. ñàkk sax. seetal li. sàndarma bu ñu xoo am na test bu ñu test machine bu ñuy testé yaram. bilaay dañ ko tegee ci apprendre ko. Mm-hmm. daa signalé 4 mois. noonu laa mm-hmm. rek. 4 mois noonu laa rek. seetal li yet yet yaa ngi dal yet yaa ngi dal. yet yaa ngi dal waaw waaw mu yëg leen wut rek commandant bi rek luus leen ñu dugal waaw benn waaye dañoo mën gëju mën a sangu ñu ne ah bàyyi ko nag commandant ne ko ñu jël appareil ba teg ci yaram ba mu def deux mois quinze jours non sangu mois jours mois jours rek waaw ci gis mi ngi eh kolo bana dañuy teeñ ndax ñàkk sangu kolo ban jaarama mer wi bu ko mën a jaarama mel xam ne teeñee mat mer waaw ma ne dina wala la waaw voilà boobu tur ngay xasal mënu ko wokk mu saaga mère bu la sonn xam nañ lépp xam nañ li apprenti lii lii rek ñaaw na xam nañ ah apprenti war apprenti wala tax ban sa bopp ah chauffeur si nag moom tax bon tàmm nañ la surtout chauffeur si nag man moom chauffeur si lay waxal chauffeur si moom 73 moom 73 bi doom Malika di jaar Kër Massar ñooñu jaar am toile ñooñu ñu doy waar saltan nañu receveur ya saltal duñu sangu te dañoo dem ba jël jikko jikko jikko jikko super jikko super bi lañ léegi transféré indi ko ci ndax kéroog gis naa ci receveur te ci lan pes mu nga def ay ay yu ay tablet yambaam yu baax la defar ndeysaan ko ca kanam ci tablet bu bon mu xira duñu ko ñëw fii kéroog kéroog bis ba ñëpp dañuy mandi mandi la rek te loola lañ war a ba mhm. da nga ci gis koo wat ba baa nga cuqaara defi rasaak lu kenn xamul sangu duñ ko def imbécile dañuy jàpp rek réet ci kanam day ñam rek réet day ñand fu mu jéppali jël ci yaram waat ma nga salte salte gis nga man daal doonu sëfër war laa tax bon ci sa bopp sëfër si li ngeen def rafetul apprenti yi moom waa LC yi leen ñuus waaye ñun ñi leen ñuus waa LC yaa ngi ñuus waaye mag waa ñu ma tax man samay cent dañuy ñëwaat cent huit yi dama leen di génne dama leen indi booy bu tag apprenti bu ma ci jàpp naa bu tax sama. boo xool Sénégal sàcc ñoo a suivi sa wóor si. la waaye waaye léeg-léeg sàcc jees neer la ñuy def. Ah. dañuy defee jees neer. ah Sénégal Sénégal sàcc Sénégal seen sàcc dañoo aay. xam-xam la xam nga chinois dem nañ ba ne vraiment sàcc lañ ko fiy jëlee fii ci réew mi. ko ci àdduna bi. mënoon la fii rek waaw ah kay yeneen réew yi ah kay am na. waaw ah. chinois hmm. nañ benn machine. Ah. boo xam ne day jàpp ay sàcc. man noonu la ko sàcc yóbbu ko États-Unis une minute mu jàpp dix millions sàcc. oh ñoom seen réew mbaa jeexuñu nit ñi dix millions sàcc bu ko fa jëlee réew ma nit ñi lu ko yëngal. wax ah, nga dëgg réew ma yàgg. yi ne ah kaa lañ jël machine bi yóbbu ko Japon. Hmm. ñu yóbbu Japon ci deux mille mu jàpp cinquante trois mille sàcc par seconde. Hmm. moom machine bi. rek suñu président Macky Sall envoyé leen machine boobu mu ñëw fii ci réew mi. moom mag soxla na Macky Sall mën a soxla naa machine bi ndax jàpp naa keneen war nañu masih laam laame te am na masih député Abdoulaye Wade yi fi nekk yoo xam ne ni war naa ay sàcc la ñoom tamit machine bi leen mën a génne ñu andi machine bi poor teg masih machine bay jàpp sàcc de gars yi ab Macky Sall wax masih wax ba indi ko poor na ko tëb poor ne bu ñu xëyee gendarme yi jël si ko dugg ci réew mi gars yi xëy gis ñu machine bi nga ne machine bi doon jàpp sàcc yi waaw sàcc sàcc nañu nga xam ne waa Sénégal ay machine bi jàpp nañu géej ay sàcc nañ ko jaamu fi raay. nga ni. saratu ah wa yow. ba jàpp aminte ko jàpp moom machine ba la Sénégal ya sàcc. sàcc ko moom mi doon jàpp sàcc moom lañ sàcc. moom lañ sàcc jaamu a waaye maanaam waaye waaye man maa lay fan fier nekk li yéen mi xam-xam. laa ilaha illallah. man damaa war ci. ci ah waay gën na mais yéen say mbaaw maa ngi ñaan yéen gendarme yi gendarme yi nag yéen laay waxal directement masuma wax gendarme waaye tey dinaa wax gendarme surtout seen commandant bi Assane Seck Assane Seck yow laay waxal ñoo dawal ndoo fas ñoo defandoo rab ñoo asan sek mau Seck moo mau Pandré sama Pandré man ñoo jëloy Pandré. bàyyi ma moom Boulangerie. ah gendarmerie ngay waxal. Boulangerie asan? Seck. sama. Iya. ah Assane men xam naa. Assane Seck yéen lay jàpp waaye bu ma jàkkaarloo Assane boo ma tee ma def lu bon xam nga. ah gendarme la ko ma mau naa mau Seck yow laa. waaye da ngay def waaye li bu doole ja moom moo doon sóolal waa doole ji rab rab moom lañ moo doon wax waaw yow sa waay doo wax ci rek te pour arriver au top avec la aim up tey commandant moom Assane moom commandant la fay da ma bëgg a wax loolu waaye dama wax Assane dama wax sekk si ginaar amul bëñ waay yaa doon def noonu yaa doon wax naan rab ñaa doon rab waaw leen góor léegi nag liñ lay ñaan yow Assane mooy mu jàpp seen mbaaw duñu sangu après tey du ñooñu doon wax ñooñu Wow, na duma bu leen yërëm ku sangul wàccul duma waaw ku la ci jaaxal indil na ko ñun ngi samay 108 bu soobee yàlla naa bu tap waaw ndax doomee raam yi xamul leen tee mën sang yow ndox ni mu neexee tàngooru miti jël sam njàmpeg sa saabu moo dugg sa duus wax sew def sa bain bu baax sangu ba set toilette nit ñi lu leen ko xam imbécile ngi ci après barke am ci daawoo mën a bindee sa sopp ko sëb kii. waaw dafa mën a ñuul dañoo mën a tilim seen tànk seen man léegi dañ may laajub xaas sax dama naan ah man dafa may teg ni loxo. mu taas ba ñuul kuk mel ni maa waaye kii. xanaa këriñ lay jaay. xanaa xamoo ne tilim dëgg dëgg dëgg dëgg day tàngal xol. mais apprenti maire bi na ko ne eh apprenti. mooy ma sëñ Ba. lu ko ay jot a day fa taxaw eh, xool mo kantata bo jaba dafa la bagage yow sa morom ndey nga nak ma dafa la bagage ah way ko do doomi haram doomi haram morom ndey nga nak ma dafa la bagage jojo apprendre du apprendre dara ndey morom gis nga yenn kaddu yi apprendre yi war ngeen ko mhm. seet xam ne kilifa yi ngeen yeb ni ngeen yeb seen kilifa lañ ñi seen morom lañ waaye ñu koor gi naqar dara da ci yomb moom koor ñoom naqar dara da ci yomb ba tax rek doy na bu ngeen ci bëggee di naqar deret di ngeen rey client yi. di ngeen rey client yi te yéen client yi tax ngeen liggéey imbécile yi bu ne client yi ne fi ñukk leen fi ñukk nekku naqari dem ci dikki bu waa ngeen torox wala. Hmm. toskor dina leen ñeel. waaw Ndiaga Ndiaye hmm? yëpp Ndiaga Ndiaye super moom dañ fiy jóg moom. waaye nag mbaax ndimbal njaboot lañ de. am na ruq yoo xamee nii. Eh, eh, eh, waaw waaw yëmbal Fass Mbao ak yooyu dëbb woon ak yooyu. waaw. yee ñooñu su perte en wallaay. boo jógee ñooñu de. ñooñu fukk la ñam am na ñoo xam pas fukk la ñam. boo bëggee rey jox leen ay. waaw waaw waaw ñoom booy Fass Mbao yi. Mhm. Ah, ak ñoom ak ñoom booy booy booy Omar. Omar Ndour Macky Mass Ndour ah, waaw Omar. Ah, Fass Mbao dëkk yi. bu ci duggul day dox ba Fass ah waaw ngor wakaam yox super yooyu dëkkul ngor su jële waaw doomeeraam ji moom itam dëkkul fee côté côté côté côté kee Grand Dakar nangu na fan sa gaay ah waaw moom mii def waaw ah waa pot ndeysaan may mu noon ko sama yëf maanaam kon doomeeraam ji sa yëf nga série boobu mm-hmm. defagul dara nga yaakaar ñuy dawal noonu ci internet bi loolu laas maa film bi la la maanaam bi ñëw dëgg dëgg buñ ci duggee wiir wiir doo kenn du wax ay waxam café avec moom fay na anasana moom xóoyal nañ ko Hmm? moom bokkul moom bokkul boobu nag naa doy war nag. film boobu poté mooy suuf ba ñuy mujj. man kay maa a yow daal dansé dansé ngi mais a xam nga la nag booy pot naa doxal ndey la booy ah, pot fan yee passé damaa doxal benn gën man waa ji nekk ci kaw bi tamit jël naa ko sama neex ma ne maa ngi tegal sa ndeykat oh, xam nga loolu tamit di doxal nag jël di xool bi dañ ko. waaw. di présenté li nga xam ne